xanaa dunde ko ci lu baax dunde ko ci jawarte dunde ko ci ah, ki nga xam ne mooy sunu président de la république muy Macky Sall ak soxnaam muy sunu doom di sunu goro noonu rek laa ko dunde ak réew mi ak xale yi nga xam ni yàlla may na leen ndam ci réew mi ñoom ñëpp la yàlla may ndam àddina bay boo ma ne sax senegaal gépp la yàlla may ndam boobu ba tey ñuy bég rek ñun ay mag lañu sax waaye dañ cee boole pour ñu ñëw ñun tam bégal xale yi. loolu dëgg la Macky lu ko war rek lay def du def mukk lu ko warul ndax alaaji Ablaye Wade moomu jaar na fi def fi lu ne ci lu baax Yirim Fara Wade Ndiaag ak Daara Wade Ndiaag ak Ndiaag Wade Ndiaag wal kooku Wade Ndiaag Ndiaag seen baay doom ndonk mi ci mbiraay ak jigéen laajul jaam mu bañ ma siinee ma naam fàtte ku ci nekk rey na gaynde Njaay muy président boo xam ni moom itam ku baaxoon la di bàyyu Ablaye Wade ah, di bàyyu Macky kon tey ji Macky delloo ko njukkal loolu rafet na lool rafet na ba ca kanamu yàlla waaw nañu ko bàyyi rek xëy na booba dañoo kontaanagul woon waaye fi mu ne nii toll nii yàq xewi na kenn du yàqati jàmm rek la kii suñu doom yi ak suñu sët yi dootuñu def lu ñu warul def lu baax rek la ñuy def ndax boo xamee ni li ñuy wax gan saful mbaam téeméeri gan saful mbaam mbaam du ca dee doomu mbaam du ca dee kon xale yi ñu ñu xam ni nag ah nanu góorlu rek nanu góor góorlu rek jàpp seen réew jàpp seen réew rek daal daal daal loolu laa ci mën a wax nan jàpp seen réew xale yi bonuñu ñun ñi nekk ak ñoom ñu dem ba ñu nekk suñuy sët xam nañ ni xale yi kenn ci